maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp bu baax a baax di leen dalalaat ci Polyglot House muy chaîne YouTube bi nga xam ne li ko tax a jóg lenn dong la yombalal njàngum làng yi nga xam ne yittewoo nañ ko ndax mën nga euh, nekk bitim réew wala ñoo xam ne dëkkuñu Sénégal ñëw Sénégal bi dégguñu làng bi lu ci manti doon rek ci manti doon xam làng ba dëkk ba nga nekk da dimbali bu baax a baax a baax dina la ubbil bunt yu bëree bëree bëree bëree waaw ndax ñun am na fuñ si jaar am na dëkk yuñ dem ñàkk dégg làng ba metti woon na si ñun waaw moo tax bi jàllee ci loolu lépp ñu taxawal chaîne bi bëgg see bay suñu waar ba nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne am nañ soxlay yi jàng làng yi nga xam ne ci ñun xam nañ ñu laaye biir ko tasaare ko bu ko defee ku nekk mën cee jot tey ñu ñëwaat ak yéen ci beneen leçon bu bees comme niñ leen ko waxe woon ci leçon bi passé muy euh, what do you bu fekkee ne seetaana googu wala dégg kii wa mën nga koo teewlu ci seen bi am na beneen leçon bu ñu defoon ko muy wat bi du comme boo bëggee laaj nit looy liggéey ci anglais yooyu yëpp boo demee di nga fa fekk leeral yi waaw tey nag tiitre bi greetings la greetings boo ko déggee ci anglais mooy nuyoo waaw nuyoo nuyoo nag dafa am ay xeet nit ki nga xam ne par exemple yàgg nga ak moom xam nga ko muy sa waay na koy nuyoo bokkul ak nit koo xam ne yaa ngi koy soo gis tey ñu présenté la ko tey boobaa loolu la anglais di wax naan um, formal greetings. formal greetings mooy ki nga xam ne um, yaa ngi koy soog a gis sànq uh, miinantewu leen amu leen yenn relation yi xam nga kooku day am lu ma laaj ki nga xam ne nag sa waay la xamante ngeen boobu mooy am formal waaye bu ñu demee ba ci biir leçon bi yooyu yëpp dinañ ci indi leeral yu uh, leeral bu baax a baax ba mu leer seen bopp dinañ ci indi tamit ay exemple ba mu gën a leer bu fekkee ne abonné woogoon ci chaîne bi tamit bu ko fàtte abonneel te ngeen jàpp ci liggéey bi di partager vidéo yi euh, bu ko defee mu mën a tas bu baax a baax ba euh, ñi ko yitewoo mën cee jariñu loolu ngeen ñu mën a jàppale waaw kon ñu tàmbali bisimilah. Greeting someone. someone, greeting someone, greeting someone. day mel ni da naan grë grë greeting someone greeting someone bàyyi xel bu baax ci prononciation bi greeting nuyoo ak kenn wala nuyoo ak nit nuyoo ak nit greeting someone greeting someone nuyoo ak kenn greeting someone. waaw kon ci ehm, wàllu nuyoo woowu comme ni ma leen ko waxee ci commencement bi dafa am formal greetings and informal greetings kon li ñuy dem tàmbali nii mooy formal greetings formal greetings formal greetings right hello hello hello waaw bii moom gàtt na yomb na te nit ñi yaakaar naa ne yàgg nañ koo dégg waaw nit ki nga xam ne yaa ngi koy soog a gis xamoo ko wala ñu la koy soog a présenté wala yu demee noonu mën nga ne ko hello ok hello waaye nag pour ci wolof ma ne la lii lay tekki maanaam par exemple baat sàngam lay tekki dina xaw a jafe ndax wolof daanaka moom subaa ngoon gu dégg bëccëg muy taw wala mu naaj salaamaaleykum la ñuy wax waaw salaamaaleykum. moo tax ma def salaamaaleykum noonu ci suuf waaw mais hello euh, mën nga ko nuyoo koo xam ne xamoo ko wala yaa ñu ngi la koy soog a présenté hello. mën nañ see joxe exemple par exemple ñu présenté la Demba nga ne hello Demba hello Demba hello Demba comme salaamaaleykum Demba salaamaaleykum Demba hello Demba hello. Demba ok salaamaaleykum Demba. how are you how are you how are you how are you how are you how def maanaam na def how are def how are you ñuy bàyyi xel bu baax tamit ci prononciation bi ndax tey euh, muy làng yëpp tey boobu mën ngaa wax dara mais waxu ko mu leer ka ngay wax du xam lañ ko la nga ko bëgg a wax xam moo tax tamit mu may répété bu baax di di ko def mu yeex baat par baat mot par mu après tamit boole ko muy comme euh, ku ko doon wax normal bu ko defee euh, boo ko déggee di nga xam ne lii lañ si bëgg a jublu daal maanaam lii lay tekki How have you been? How have you been? How have you been? How have you been? How na nga nekke woon par exemple maanaam euh, tekki bi ci wolof tamit dina xaw ja parce que dooy faral di dégg wolof naa la na nga nekke woon mais anglais am na nu muy kiiwee maanaam daf lu bëgg wax euh, jamono yi paase yooyu maanaam nan nga defoon daal maanaam nan nga def par exemple da si boole li passé xam nga boo ñëwee nit ne ko how are mooy comme na nga def rek maanaam na nga def wala ñu demee noonu nit ki ma ne la maa ngi si jàmm mais boo ko defee comme façon bii nii how have you been how have you been muy mel na yow tamit yamoo ci tey rek mais da ngaa boole démb bërki démb ak fan yi passé yëpp boole ko ci nuyoo bi daal xam nga good morning Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. maanaam loolu bu ñu ko tekkee baat par baat ci wolof mooy um, suba jàmm maanaam nan laa ko mën a waxe ci wolof maanaam good mooy lu baax morning mooy suba maanaam comme suba gu baax xam nga waaye tamit wolof du nuyoo noonu salaamaaleykum la lay wax moo tax ndax anglais dañu jël bis bi wala yeneen langue dañoo jël bis bi séddale ko ñetti part muy suba gi euh, bu midi passé ak bu jant bi sowee maanaam 6 heures jëm jëmmaat ba wi yooyu yëpp dinañ ci indi leeral mais good morning mooy comme salaamaaleykum rek maanaam mu ngi mel ne mu lay yéene euh, suba suba jàmm maanaam nga yendoog jàmm good morning salaamaaleykum good morning waaw comme comme bu ngeen xoolee baat bi afternoon afternoon after mooy après après après noon mooy midi par exemple midi digg bëccëg léegi nag lépp lu topp ci midi rek afternoon la ko anglais di wax booba muy dem ba 6 heures 6 si ngoon bu boobaa dina changé dinañ mooy bi ñuy xool bi ci topp mais afternoon jàppal ne bu midi jotee ba 6 heures diggante midi ba 6 heures loolu mooy afternoon ok ci anglais afternoon kon léegi booy nuyu nit boo xoolee heure bi neen midi jot na diggante midi ba 6 heures good afternoon ngay wax good afternoon bu dee 6 heures ci suba ba midi bu boobaa ngay wax good morning good morning good afternoon léegi ñu xool ci bi ci des Good evening. Good evening. Evening. Evening. Good evening. Good evening. Good evening. comme ni mu leen leeraloon evening mooy six heures ci ngoon bu jotee ba jàppaat minuit ci guddi loolu la ñuy wax evening six heures ci ngoon ba jàpp minuit mooy evening kon booy nuyu nit ci. Euh, diggante boobu noonu nga koy nuyoo good evening bul wax good night de parce que night moom guddi lañ ci xam mais boo nee good night mu ngi mel ne yaa ngi tàggoo kon good night du nuyoo mais tàggoo la kon good evening boo bëggee nuyu nit ci anglais ci guddi maanaam 6 heures ci ngoon ba jëm minuit good evening ngay wax good evening good evening ok good night comme ni ma leen ko waxee tàggoo la waaw mooy comme fanaanal jàmm. waaw kon loolu noonu exemple yi ñu leen jox sànq mooy xeeti nuyoo yoo xam ne mën nga koo nuyoo ki ñu lay soog a présenté ki nga xam ne xamoo ko même sa xarit yi nga xam ne xam nga leen sax bu la neex nga nuyoo leen noonu amul benn problème formal greetings loolu anglais di wax formal greetings waaw li ñuy bëgg xool li ñuy bëgg a jàll nag def ci ay leeral mooy informal greetings informal greetings informal greetings informal greetings mooy yi nga xam ne sa xarit yi nga ñi nga amal euh, ñi nga miinanteel ñi nga yàggal ñooñu dong nga koy nuyoo waaw tey mënoo jël comme genre xeetu nuyoo bi ñuy bëgg a expliquer nii dem di ko nuyoo koo xam ne dañ la koy soog a présenter léegi wala euh, xamantewu leen wala yu demee noonu xam waaw kon ñu dem xuus ci leeral yi bu ko defee mu gën a leer. xaay xaay xaay xaay waaw bii tamit yaakaar naa ne miin nañ ko <laughs> miin nañ ko bu baax gàtt na te liñ koy dégg bëri na comme hello mais bokkul hello mën nga koo nuyoo koo xamul ak kuñ lay soob ak présenté mais xaay dañ koy considérer comme lu informel maanaam loo xam ne ñi nga amal relation ñi nga miin ak yooyu noonu lañ koy faral di nuyoo. terewul tamit am na ñoo xam ne moom nu leen neex la ñuy nuyoo <laughs> waaw mais daal liñ ci gën a fonk liñ ci gën a soob mooy nga koy nuyoo ñi nga xam ne miin nga leen am nga ñoom relation quoi beneen bi hello ñoo xam ne ah, ñoo ngi la koy soog a présenté wala miinoo leen. waaw boo gisee tamit wolof bi binduma fa dara parce que boobu ba léegi maa ngi xalaat mais xaw ma nan laa ko mën a tekkee ci wolof waaw bu fekkee ne tamit ah, yow mii may déglu xam nga ko. nooñ koy waxe ci wolof walla benn baat bu mu xaw a jegeel ci wolof bind ko ci commentaire yi comme ça ñun tamit ñu jàng ci ci yéen waaw waaw mais daal aw ma exactement baat boo xam ne mën naa ko tekki ci ci ci wolof xaay mu ngi mel na nga ne nit hey yu demee noonu rek comme dajeeg sama waa ji waaw hey yu deme noonu daal what's up what's whatsapp whatsapp what app what mooy lan app mooy maanaam comme lu nekk ci kaw hmm. mais loolu boo ko tekkee mot à mot du du am sens comme boo déggee baat bi tamit whatsapp comme whatsapp bi ni ñu di utiliser foofu la jógee whatsapp maanaam whatsapp moo tax comme boo bëggee jokkoo ak sa waay wala dara bind envoyé ko message whatsapp xam nga par whatsapp mooy comme mu ngi mel ne nga ne nit naka la euh, lu bees xam nga genre yu demee noonu quoi bëri na nit ñi ni ñu nuyoo léegi yoo xam ne xeetu nuyoo yu bari moom Sénégal yaakaar naa ne moom euh, xeet yooyu bari na fa waaw WhatsApp waaw anglais WhatsApp lay wax waaw WhatsApp. how is it going how is it going how is it going. how is it going? How is it going? How is it going? How is it going? mu ngi ninti nga ne nu mu demee nag nu mu demee waaw nu mu demee nag wala noo doxalee genre yi demee noonu quoi nu mu demee bu fekkee ne yow mi jàng ci vidéo bi tamit am nga beneen euh, noo ko mën a waxee ci wolof tamit bindal ñu ko ci commentaire yi comme ça ñun tim ñu jàng waaw comme ni ma la ko waxee rek ñun ñëpp dañuy jàng dañuy jàppalante rek waaw how is it going how is it going how is it going what's new what's new what's new what's new what's new what's new what's new lu bees new mooy bees lu bees what's new lu bees lu bees xam naa da ngeen ne anglais moom bari nañu wat <laughs> waaw mais nio bi moo ko demee moo demee noonu parce que comme que dangay laaj nit ki euh, te wat moom baatub laaj la moo tax what's new what's new lu bees lu bees what's new what's new lu bees what have you been up to what have you been up to What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? ci lan nga nekk nag nga dajeeg sama sama jenn waay waaj sa waay ci sama waaj ci lan nga nekk nag ci lan nga nekk xam nga ci lan nga nekk maanaam nekkul ne ci jamono jooju nga koy laaj rek euh, moom la lay tontu mais nag maanaam ba nga ko gëj a gis ak léegi ci lan la nekk daal moo tax comme bu ngeen fàttali ko how have you been ci formal bi maanaam nekkul ne day laaj bokkul ak how are you bi nga xam ne mu ngi lay laaj yow na nga def léegi nii rek mais how have you biin boobu noonu da si boole bis yi passé maanaam démb ak bërki démb ak weer bi passé yooyu yëpp biin tamit what have you been up to maanaam mu ngi ci boole waale démb ak bërki démb yi waaye ci si lan nga nekk sama waa ji waaw gëj naa la gis si lan nga nekkoon ak ci lan nga nekk genre yi demee noonu. waa kon tey bu ko defee leçon bi loolu la woon guddul nag mais am na solo trop ndax leer day baax nga euh, euh, ñu indi leeral ci xeetu nuyoo yooyu noonu yëpp. mën nañ di ko dégg waaye tamit bu fekkee ne yaa ngi koy dégg te utiliser wu ko fa nga ko war a tamit man naa indi yeneen kii daal. mën ngay nuyoo nit mu jàpp ne da nga koy yàpp wala euh, mooy loo fekk ne da xamul différence entre nuyoo yi mais léegi comme que li am na léegi leer na bu fekkee ne tamit am ngeen ci benn question wala loo xam ne leerul wala ay duut bu leen hésité bind leen ci commentaire yi wala am na ci ñoo xam ne yor nañ sama numéro déjà wala ku ci soxla boo mu waxee rek man incha allah dinañ ci taxaw indi leen ci leeral bu baax a baax a baax a baax. waaw ah, parce que loolu moo tax ñu taxawal canal bi comme ni ma leen ko waxee rek jàppalante fexe ba ku nekk rek euh, gis ci sa bopp bu baax a baax ba tax na bu leen hésité commentaire yaa ngi foofu man lu ma ci mën rek incha allah commentaire bu ma ci gis rek dinaa ci jéem a tontu bu baax a baax yenn saa yi nag ma xaw a toog ay deux trois jours du ma nekk en ligne mais su ma ñëwee rek naa xool commentaire yi jéem ci tontu waaw kon ñu ngi leen di bàyyi ba beneen yoon dinañ leen préparer laat beneen numéro 3 fois mu jëm ci comme genre yu demee nii rek lay doon dañ koy jéem a def leçon yu gàtt yoo xam ne di ngeen ko mën di déglu mu des seen bopp ngeen pratiquer ko comme ça mu bañ a kii ndaxte tamit amul njariñ ñu def leçon yu gudd ba pare euh, boo ko dégloo tamit après nga fàttewaat ko mais bu gàttee nii xam nga euh, mën naa des ci seen ci seen bopp yi waaw kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen. Euh, fàttali ne bu ngeen abonné wul woon ngeen abonné te tamit ngeen jàpp ci partage vidéo yi waaw ndaxte noonu ngeen ñu mën a jàppale jërë ngeen jëf